waaw sunu kàddu mooy sant yàlla euh, bi ñu mayee wér ak wérle bi nga xamante ne bi tax na ñu dox euh, ci biir campagne bi dem nañ fóot ci nekk waxtaan ak ñooñu fa mënoon waxtaanal luñ ci yàlla mayoon ci temps euh, tey yàlla may ñu yeew jàmm ak salaam ànd ak suñuy kilifa ànd ak suñuy nawle yi nga xam ne moo lañ bokkal coalition bi ni koy ni ñu koy yoon may ni ñu ko constitution maye voté nañu ci jàmm ak ñaan yàlla mu may ñu nii vote bi tàmbali bis bi mu doxe fi nii ba keroog muy jeex ci jàmm ak salaam xaxar jaru ko fi saaga jaru ko fi nañu bàyyi citoyens yi nga xam ni ñoo ñoo yeewoo seen kër yi ak li nga xam ni moom lañ ñëpp wala moom lañu fas ci seen xol yi ñëw dugal ci urne yi en toute transparence bu mu am benn benn benn buuxante ci seen dënn yi nañ leen bàyyi ñu voté en intime conviction déedéet déedéet euh, li war mooy ku voté euh, xam nga nag Sénégal moo baaxoo nen ndax xam nañu influence bi am ci biir vote gis nañu ñoo xam ni dañuy voté du ñu génn taxaw parce que seen mbokk wala nangam war nañu wax nit ne ko voté fii kër ci kër si euh, yooyu dafa jaaduwut li am solo ba am solo mooy ku voté li nga mën a def génnal am nañ droit nag taxaw ci biti parce que bokk surveiller vote da bokk te surveillance bi yemul ci les autorités administratives parce que influence yi jënd carte taxaw ci buntu kër yi joxe xaalis yooyu ci autour des centres de vote lay xewee nit ñi war nañ ko que ñëpp xam nañ li xew li am solo solo mooy ku voté li nga mën a def génnal am nañ droit nag taxaw ci biti parce que bokk vote bokk te surveillance bi yemul ci parce que influence yi jënd carte taxaw ci buntu kër yi joxe xaalis yooyu ci autour des centres de vote lay xewee nit ñi war nañ ko surveiller parce que ñëpp xam nañ li xew cest à ñi xam ni li xew Thiès ñi fi dëkk xam nañ ko donc li war mooy bu ñu voté effectivement ñu génn man gis nañ fi ñoo xam ni bokk nekkul ci liste duñu candidat ay supporters ci yeneen liste lañu mais ñu ngi biir santé bi taxaw ni ay nee garabu niim donc nañu génn bàyyi nit ñi ñu voté ci seen aqulahi taala ak li nga xam ne moo leen doy ñun amul dara lu ñuy song ci àdduna di ci am naatafle ñun wax dëgg yàlla euh, du du tey lañuy tàmbali di am confiance ci li ñuy def yàlla def na nag euh, dañ koy def ak maandu ak teey euh, yaakaar naa ni daañu ko def ak yar parce que dañoo ànd ak ay kilifa te kilifa yi ànd ak ñun amuñu droit teg benn jéego bu ñu naan def ngeen njuumte ñi ñuy jàkkaar loolu Augustin Tine man suma nijaay la tëdd liste bi fële sama nijaay la man moom bu taxee bu laaj leen ko moom dina leen xamal ne moom sama nijaay la donc man duma def loo xam ne lii danaa taxaw suma nijaay di sëgg mukk dama koy jox respect bi ci war bu ngoonee nag ki yàlla bëgg mu dem assemblée nationale nañ ko félicité bu bu ñu saaga bu ñu xeex amul njariñ lii daal mooy kàddu yi xam bëggoon naa ko yëkkati di remercier également toute la presse parce que gis nañu ni ñu taxawee ci affaire bi gis nañu góorgóorlu bi ñu def pour yamale euh, dañ leen di encourager